kër maam waaye it fële ci Ngodiba nga xam ne ne suñu maam arrangement ba ak maam Hady ñun la maam rajo Abdoulaye boole woon ba nekk ci Kossy biñ fi bàyyeekoo suñu bàyyi sama bàyyi laaj baabu ba ak suñu bàyyi as jëtu ak papa Mbaye Donde mii di wéyjuru Mamat ak papa Baye jëtu yàlla boole leen fii ci genn kër ba yàlla daf la ko soob ci wéyjur yooyu ñu tàggoog ñun. doom yi des mamat mii nag daf di kenn ko xam ne ni ma ko waxee tey dama ne tey jii la maam aadi door a génn àdduna te loolu bu ma ko waxee ñu bëri dinañ ma ko nangul yàlla daf ko defoon muy nitu xel yàlla may ko xel rafet waaye yàlla defoon ko it muy nit ku am yitte yàlla defoon ko it muy nit ku yaatu waaye yàlla defoon ko it muy mixdaam maanaa xam ne ci liggéey jaami yàlla yi rek la daan xëy di ci gont wax naa léegi ci néeg bi mais bànqaas bu rëy fàq na ci sama euh, keppaar man tam wax ko maa ngi nettali léegi rek benn waaye ma ne ko ziyaara ngodi ba bu aksiwaan bu xoolee situation bi ni muy demee rek dina ma woo jàpp jàpp ma ci loxo ne ma ma laa soxla ñu dugg ci nekk mu ne ma nangam defee ko nele diw na dem fële diw na defee nele noonu lay nekkee ak man ba ziyaara ba jeex te ziyaara ngodi ba koo génnee ci ngodi ba mu jeex tàkk waaye ñi ko seedeel léegi am na ku ci wax ne muy magam baye hari di sin mag ñun né ne na ngeen ci gan gani gamu bi té loolu bëgg la te loolu mo yaakaar na né kër alaaji mass ba wala kër alaaji baabu ba ñoo ko ñoo gëna mëna sédé ñom ñi nga xamné ne na né tay ëpp na té wéraat ba ñu boole ñom ci kursi ba fi ñu tok gannaaw bu ñu ñi sant ñess amul ku gëna jégé mam hadi ci waa man te kër alaaji mass ba loolu mom ñëpp xam nañ ko ñun buñ ñëwee léegi nii kër ga fa ma génnee sama néeg la mm-hmm. bu xam ne sama baay lañ ko joxoon joxoon ko sama maam su may dem dama koy tëj bu ñëwee ñoom ñëpp dañuy génn seen néeg seen i kër ni ma ko waxee rek xanaa ñes ak ba waaye ñun waa Ngodi ba ñoo mën a seede ne ma man ku tabe la woon ku doon dimbale jaami yàlla yi la ku amoon yitte la ku amoon xel mu rafet la ñu ngi koy yaakaar yàlla dégg nañ la ko sëriñ si seedeel yàlla na wax naa leen nag si suba wax naa ko yaay ma ne ko jëm na sa mbaax amee njëriñ moo tax nag waa Ngodi ba ñëpp ñëw nañ kii taxaw nii sama bàyyi laaj Ba ku ne xam na ko wutu ay mboolem ay magam te ñëpp ñëw nañ sax. Mm-hmm. ñu jógee Dakar ak ñu jógee Ngodi ba ak oto la ñu jël ñoo fekkee si lii nga xam ne ñun ñoo ko moom suñu bàyyi as jotu keroog bu mu nelawee. Mm-hmm. Alaaji Abdoulaye Niass rahmatullahi alayhi daf ne as jotu mii doo Niass la sant. Mm-hmm. fii la dëkk waaye oo leen ma mbokkam Alaaji ba mu ñëw raxas ko.